effectivement xelu ñu bëri ba dafa demoon ci ah yee ax lu bëri du ñu gis Elzo jàmm donc lii ça peut rapporter quelque chose ngeen amoon benn collaboration bu nice amoon ay link à l'époque ah yu rafet a rafet mais à un moment donné ñu sentir ah ax lu delluwaat nañ seen coin Elzo nekkaat na ci affaire am dib nekkaat na ci affaire am yi nee na coow la woon nag coow amoon na ci lan moo nekkoon euh, mbëbët bi ba ngeen booloo mhm. bi ngeen booloowee lan ngeen nekkoon doon liggéey pour jox ko Sénégalais yi. parce que mm-hmm. bi ngeen boolewee am na lu bëri bëri suscité na ko. mais lan moo indi aussi tamit ku nekk demaat sa yoon ba indi yenn saa yi ak lu bëri def ñu ne noonu dip la ñuy wax yenn saa yi dip def ñu ne yéen moom ngeen di wax. so so lépp ci fay maa mën bi la commencé. boo dafa am li nga wax dafa am ñaari facettes ci feeñ dafa am maturité boo xamante ni daf ci feeñ. commencement bi hip hop ku ciy ñëw di def tàgguwoo kenn ba nga koy def yaa ko def tàgguwoo ci kenn amoo ci woon sax ay ñooñ defoo woon carte da nga ñëw di ko def c'est c'est une jeunesse tellement ambitieuse boo xamante ni moo nekk ci game bi te ku ci nekk am nga sa fulla am nga sa fayda xam nga ni ngay doxee xam nga lan nga bëgg xam nga lan nga bañ ni mën a ànd ñooy ànd you know mm-hmm. euh, ànd featuring boobu ñun ñoo ko sabab

xam ni dip moo ci nekk son bi Elzo mu ngi hmm. et que aussi on a on avait public boo xamante ni ñoom chaque jour dañu doon acharné wu ci net bi hmm. et que loolu doxalul musique musique United moo koy doxal connection love collaboration loolu mooy doxal musique ak hmm. collaboration donc collaboration boobu ñun ñoo tëdd guddi dégg ko di jënd ko sentir ko te suba buñ ko sentiraatoon dañ koy defaat nous jël sound bi def ko muy deep ak Elzo mu nek fay ma mëni te il mérite ñu fay leen mëni comme ñu niñ mérité ñu fay ñu mëni mm. te ils l'ont dit ba nga leen joxee parole ci biir couple bi dañu exploiter sen parole dem ñeu wax ci lan duma ñeu teug tëgg te ma million nga may fay mm. donc on entend des mots millions mm. parce que ñun est-ce que àggoon nañ million mais ñu commencé di wax million tay millions yooyu lañ ñuy fay est-ce que dañu osé oser ñu defaat fay ma mëni di wax milliard ñu ñu koy fay you know it's possible ñu loolu lañ gëm so son boobu bi mu génnee def na effet bi muy def ñu ne gis ci seen bopp public bi gis ci seen bopp mu nekk connexion boo xam ne dafa nice woon te ba tey mu ngi nice tout se passe bien yow mais xam nga man la laa gëm mm-hmm. xam nga la laa gëm ci business man mm-hmm. doxalal sa business mm-hmm. ma doxal sama business sàmm doxal business parti doxal business nga xool parce que loolu mooy tax suba kër gi am lu ñu lekk mais bu ñu xëyee ci kër gi chaque jour longoo teg caayin kër gi du dem ku ne nekk ci li nga nekk nga dem sa nekkal ci li nga nekk nga jëmale sa affaire kanam jëmale sa business parce que dañuy dox groupe bi commencé nga gis kii nii takk na soxna kii takk na lii kii am na kii yóbbu na yaay màkk kii def na lii loolu du toog di longo moo koy maye mais dangay ngay jóg nga dox sa business waar mhm. n'empêche su fekkee ni déggante woole na ku nekk yéene sa moroom jaam ku nekk doxal li may déggante bi daan am amatul léegi non non ku ci nekk mu ngi li mu nekk des la may da ko mënta may njoletaal nga xool njole mu taasu nga déglu daaj bi muy taas taasu nga ne kii de su ma ko woowee ne ko taasool ma nii mu taasool ma lii ma rabee lii mu solal ma mbubu taasu katam indil ma ko ci sama hip hop ndax du joxe ndax ñaar yooyu yow soit nga nekk naa naafiq pour ne noo Tiken jaar rek nga war a woo waroo woo njole wala nga complexé gis nga dañ ko waxul te dee rek mais mbir mi complexe la gis nga gaynde man waali laa njëkk a featuring ci mbalax mhm. coow jibul coow jibul de daal laal dix millions de vues kañ taf taf romb tëgg ay nangu ndax gaynde gi dafa ñëw mu fiil ni muy wan wayee kaay nga wayal ma si sama sound bi mu way ma waa su nekkee ni kon mbalax day yàq hip hop kon waal yàq na léegi rap américain parce que gis naa ko mu featuring ak Chris Brown ak Jason Derulo mbalaxu foofu waaw kon léegi rap américain yàqu na waaw soit ñaar rek lañ mën a juger rap américain moo yàqu parce que mbalax rap américain moo woolu léegi <laughs> yàlla akbar léegi américain woolu la mbalax maan yow ñu ne yow sénégalais doo woolu mbalax maan mais pourquoi taasu bi man taasu bi daal moo moo xaw moo xaw a lëndëm mooy lan taasu bi rawatina euh, Ndiolé taal mu war a ñëw. léegi je vais te je la te. est-ce que mais xam nga. ko pour. l'histoire defoo leen ko pour susciter débat bi pour provoquer gars yi. non non non lépp lu may def kaf dëgg la sama dëgg dëgg la dama la kaa pour nga xamal man dara ma dëgg sama kaf. Mhm. dëgg la te sama dëgg dëgg ngay kafee ba di ma wax dëgg noonu laay kafee ba wax la dëgg te boo dëggalee wax ma dëgg. ma dëggal wax la dëgg ak nyala birig ñaar la fi nekk mhm. suukar la ak kaani yow nag boo ñëwee bu nekkee kaani gee la soxal kaay nga lekk kaani bu nekkee ni suukar bi moo la soxal kaay nga lekk suukar noonu lañ toogee tu as compris mhm. moo tax suñu làmmiñ damul suñu poos mhm. te aussi je te dis tey jii nii taasu boobu ngay wax mais da rab mais rab rab taasu la parce que tey suñu yee tey suñu nee nii si tool yi la jógee toolu Amérique je te donne un exemple d' après d' après l' histoire. rab taasu kebetu salaam différence de. xaaral rek